mbokk yi teew lu ci leeral TV ak leeral point net da leen ak jàmm ci xibaaru bés bi tey ji nag nekk altine ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre atum 2020 ñu fas yéene ko dooree ak mbas mii di Covid 19 ci junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent test yi nga xamante ne daal dinañ koy def mu tukkee suñuy laboratoire ñeent fukk ak ñett ñoo ciy ñëw amee doomu jàngoro Covid 19 fukk ak juróom yi nekk ay contact suivi ñaari cas importé la ñu am ñaar fukk ak juróom-benn yi nekk ay cas communautaire téeméeri doomu aadama ak ñaar ci bésu tey bi fukk ak juróom-ñaari nekk ay cas grave yoo xamante ne ñoo ngi en réanimation benn doomi aadama moo ci faatu bi mbas mi duggee ci Sénégal di ñaari fan ci weeru mars ba léegi Sénégal am na ci lu toll ci fukki junni ak ñeent ak juróom-benni téeméer ak fukk ak juróom-ñetti cas ci ñoom ak benn ak téeméer ak juróom fukk ak ñett ñoo ci wér téeméeri doomi aadama ak ñaar ñoo ci daal di faatu ñi nga xamante ne ñoom ñoo tëdd ci lali hôpitaux yi di wéyal seen faj lim bi daal di toll ci ñetti junni ak ñaari téeméer ak fanweer ak ñaar mu nekkoon tey situation du jour ñu wax ci ci mbënd mi fële ca région bu Fatick jaboot gi nga xamante ne nañoo bénéficié ci li nga xamante ne moom mooy plan Orsec nguuruk Sénégal daal di koy teg njaboot googu nag foofee li nga xamante moom mooy gouverneur bu région bu Fatick di William Manel moom nag li mu xam ne nee na njaboot gu ci nekk rek di nga jot lu toll ci ñaar fukki junni jàpp ñeent fukki junni ci ay koppar ak ay matériel yoo xamante ne ay matelas ak ay produits détergents ba ci sax li nga xamante ne moom mooy ay ciment ak ay bassin yoo xamante ne rek nguur gi faske ne la ko jàppale daal dinañuy teg ci taabal ji téeméeri million ak juróom yoo xamante ne nag jëwrin ji yor wàllum développement communautaire daal dina koy génn ngir jàppale njaboot yi nga xamante ne ñoo loru taw yu métti yi nga xamante ne nemeekoo nañ ko fa tax na sax ñaari doomi aadama mujj nañ fa ñàkk seen bakkat ak ñeneen ñoo xamante ne nag jëlee nañ ci ay gaañu gaañu foofee nga xamante ne moom mooy ca Kaffrine ñu wax ci waajtaayu màggal Touba fële nga xamante ne moom nag ki nga xamante ne moom mooy Oumar Ba nekk directeur général bu cadre de vie et de l'hygiène publique moo fa daal demoon teewal fa ki nga xamante ne moom mooy jëwriñ ji Abdou Karim Fofana ba mu demee nag yëkkati ay matériel yu takku ñeel wàllum nettoiement ngir jàppale ville bu Touba ci waajtaayal màggal gi boobee délégation nag ki leen dalaloon di Serigne Cheikh Abdoulatif Mbacké nekk président bu commission assainissement ci li nga xamante ne moom mooy comité d'organisation bi yor lépp lu jëm ci màggalu Touba mu ngay rafetlu bu baax a baax taxawaayu ji nga xamante ne nag moom mooy Abdou Karim Fofana mi ngi xamle at bu jot dina yebal ñi nga xamante ne ñoom ñooy UCG ñu jàppale leen ci seetuk dëkk ba bu ñuy waajal màggal gi dinañ leen jàppale bu màggal gi noppee tamit UCG dina leen jàppale ngir ñu jëlee lépp luy mbalit foofee ca diwaanu Touba BFM 2020 ñu wax ci fraude bi nga xamante ne daal dina ci am fële nga xamante ne moom mooy Rufisque benn candidat boo xamante ne dañu wax ne da doon tricher ba nekk huitième du centre gannaaw ba nga xamante ne beneen moromam boo xamante ne amul BFM moo ko daal dee dem ca président du jury ba daal di koy rek boole élève wedduwul benn yoon li nga xamante ne moom mooy mbir mi xam le nag beneen moromam boo xamante ñoom ñoo bokkoon di tricher daal di a teg loxo ñoom ñaan ñëpp gannaaw ba président du jury ba daal di koy woo di ko laaj jëmale ci mbir dafa xam ne li ni mel rek ngir wuutu baayam ba nga xamante ne moom mooy liggéey foofee ca société bii di Eiffage soxla diplôme bi moo tax rek mu daal di def li ni mel mbir mi yëpp ngi xewee fële ca Rufisque fi nga xamante ne moom mooy centre Tafsir Ñaaw Faye tournée agricole bi nga na ko moom président Macky Sall mu amaloon ko ci région bu Fatick Kolda ak fi nga xamante ne moom mooy Kaffrine mu nekkoon ci durum ñetti fan mu daal di koy jeexal niki démb fale nga xamante ne moom mooy njiitu réew mi duggoon ci tool yu bëri di ko visite ak li nga xamante ne moom mooy ay parc ci yooyee diwaan moom njiitu réew mi ba mu jeexalee boobu visite mu ngi nag invité ñii di acteurs yi homme d'affaires yi ba ci sax yi nga xamante ne ñoom ñooy sénégalais ngir ñu dugal seen loxo bu baax a baax ci mbay mi ak li nga xamante ne moom mooy càmm gi Lamine Diack ak kii di doomam moo xamante ne juróom benn fukki million de dollars la mu nekk ay révélation yoo xamante ne gis nañ mooy Lamine Diack ak doomam ji nag doyelaguñu ci yooyee scandale libération mi joxe yile xibaar mu ngi xamle lu toll ci téeméer ak fukk ak ñaar opération bancaire yoo xamante ne nag tey na xel lool lañ leen di tudd ci koppar yu toll ci juróom fukk ak juróomi million de dollars yu teg sax ay koppar yoo xamante ne ñu ngi tuy tudd kii di Lamine Diack ak doomam jooju di Massata Diack journal bi di xamle ba tey lii di Citibank nag dafa daal di tëj ay gëtam jëm ci yooyee transaction nga xamante ne lu tey xel la ñu ciy tudd nag ay personnalité yu bëri ak yenn banque yoo xamante ne ñu ngi ci àdduna bi yëpp yoo xamante ne ngaangu ñu yàbbi ci yooyee mbir yooyu koppar mu ngi toll ci ñaari junni milliards de dollars yoo xamante ne ñu ngi leen ciy tudd ñoom famille Diack lu bees ci mbirum Iba Thiam kii di Dame Amar Coromba di Alia Bakhour Fatima Rijal ñu koy dàkkantale Poupette Amadou Niane ba ak ñeneen ñi nga xamante ne tegoon nañ leen loxo ci boobee mbir delluwaat nañ li nga xamante ne moom mooy seen jugement Hiba Thiam mu ngi faatu woon fële nga xamante ne moom mooy ca immeuble garden nekk fële ca Almadi gannaaw wañ doon organiser ab soirée privée mu daal di fay nekk ci ay jafe-jafe violé li nga xamante moom mooy couvre-feu bi di leen toppee booloo def ay ñaawteef juge bu huitième cabinet di Mamadou Seck nga xamante moom moo yor boobee dossier moom moo daal di rek ordonné li ni mel ñu dem ca diwaanu Joal lu toll ci fukk ak juróom-ñeent moom lañ fa daal di faat ci guddik àjjuma jàpp samedi ay boori 3 heures du matin ki nga xamante ne moom mooy Baye Zal Ndour dafa tëdd rek jéeg këram ne am na ay bruit yu fa nekk ba mu jógee ci la yem ci ki nga xamante ne moom mooy Moustapha bu ñu sukkandikoo nag ci laas mi xamante ne moo joxe bi li xibaar mu ngi xamle ba Baye Zal jógee ànd ak Aliou daal di faskee ne nag dàq boobee sàcc si lañ yem ci ki nga xamante ne moom mooy Moustapha mu daal dee daw Baye Zal daal di koy topp ba jàpp ko ki nga xamante ne nag moom Moustapha génn ab paak daal di koy jamate daal daw jamono jamono ji gendarmerie bu Joal mu ngi wër ki nga xamante ne nag moom mooy Moustapha ñu xamle néew Baysal Ndour ñu ko daal di andi fële ca hôpital bu Mbour ngir amal nag ab autopsie ngi xamle kii di Moustapha nag ab charlatan la ay mbiram doxatul woon mu dugg ci ay business ba mu fa jógee nag daal mujj nekk ab sàcc jamono ji ñuy wax ak yéen police mu ngi koy wër ñu dem fële nga xamante moom mooy ca ginnaaw raay sud ci banlieue dakaroise benn xale bu doon ne kii di papaam di Abdoul Kane ay kàddoom nag mu ngi ko dénk suñu nattangoo yu l'Observateur mu ngi xamle ñenn ñi dañoo njort ni xale bi dafa daw dem ci ne moom mooy Boly Kane ab basketteuse la woon doon évoluer ci club bi nga xamante ne moom mooy TBC ñii di dëkkandoo yi nag li ñu xamle nee nañ dañu njort ni xale bi dafa daal di daw ndax jote bu mu doon faral di jote ak yaayam seeni mbokk nag ñu ngi xamle ni jote yaay ak doom faral nañ di ko nemmeeku ci ñi nga xamante ne ñoo ngi ak njaboot baayam ba di xamle ne dafa njort rek ne far bi Boly doon génneel moom la doomam àndal daal dem ñu wax ci mariage ki nga xamante moom mooy Soumboulou Bathily gannaaw ba mu tasee toog ay at amul borom kër Soumboulou daal dinay marié ni ki démb ki nga xamante ne nag moom mooy borom këram siiw lool fi mi ñu koy wone Abdoulaye Diop Khass mu nekk koo xamante ne dafay dog bu mu gàcce yi fi ci Sénégal Abdoulaye Diop Khass yëkkati nag lu toll ci juróom benn million daal di koy jébbal ki nga xamante ne moom mooy Soumboulou mu nekk nag li nga xamante ne moom mooy première cadeau mariage ba nag ñu gis fa nag ay célébrité yàggul lool ba tax na sax kii di Soumboulou daal di koy jël mu nekk garçon d'honneur am moom Soumboulou bàcc li ñu koy ñaane nag sëy bu barke ak njaboot gu barke xibaaru bés bi ñu jeexale ko nag fële nga xamante ne moom mooy mooy Mbaye Wade nekkoon ab borom ñaari tur yi doon dund ay at ak ki nga xamante ne moom mooy ab compagnon ñu koy woowee Pascal mu daal di faatu fële nga xamante ne moom mooy ca Liège ay circonstances nag yu doy waar yoo xamante lañ ko fekkee ca lal ba mu tëdd ñu daal di koy jamate ay paaka yu bari lool daal di koy rendi Mbaye Wade nekkoon pièce du protocole li di koram ba ñu daal koy fekk ca lal ba mu tëdd ba mbir mi amee nag Damien Le Boulet nekk procureur ba ki nga xamante ne moom mooy juge d'instruction ba di Stéphane Kerhoff daal dinañuy déplacé wu dem ba ca kër googee ngir say mbir mi naka la demee ki nga xamante ne moom mooy compagnon bi Mbaye Wade dafa daal di rek mujj choqué wu xamul kan moo war a mën a def jëf ji ni mu am foofu nga xamante ne moom mooy ca Belgique boo koy jërë ngeen jëf loolu moo nekkoon xibaaru bés bi ñu leen ko doon dégtal ci di leen jaajëfal bu baax a Müller.